kaay ma wax la de président ministre ak sëriñ ak borom alal ak ñëpp a ci yem ku jigéen dul dof loo amul ilimaan ak lépp a ci yem nag am na ñoo xam ne liñ leen di wan guddi buñ la ko waxoon nga ne du dëgg maara de saali jigéen yoonam ci loolu parce que mom moy serigne serigne si dañ lay yendoo rang ba ngone jot nga dem rang ko mom aw dañ lay yendoo rang yow serigne bi ba ngoon guddi jot nga dem rang soxna si lolou moy yow yaay serigne serigne gaay yonam leg leg nga leg leg ñu musul <laughs> la ma sama góor ga waxoon ndeysaan eh, daaru minnam amu fi woon way ñu teg ko ci rajo bi ma am benn gan nag muy jooy booba rajo bu mag bu nekk ci baraag bi nekke daaru minnam jiñ ci teg boori midi paa bi di jooy ma ne waaw papa la da nga feebar Didit arwatam la won waaw kay waaw kay waaw góore ko loy joy dara ndax amna fu mo mané yéssalé yeesalee mané ko duggal ci douche bi mu japp génn julliti joy rek ne ma ndax radio bi mënuñ ko fay ñu fay radio bi ma laaj ko lu muy jooy mu ne ma sa yaay sama soxna feebaru ndigg bii may wër di faj mu tëw wér ma ko teg ma ne ko num la ko tegee mu ne ma sa yaay jee ma ko daan fecculoo façon bi ma ko doon fecculoo nag sama ndigg li ne tux ma ne ko moo laaj na la lan loo nangoo ko wax da ne daa xëy dal la mu ne ma mais arwatam wax na la ko mu ne ma doom bari nañuy fecc guddi du man dong de ma ne ah, waaye yaa feeñ la nag